loolu ñu ngi sant waxtaankat bi bu baax a baax a baax allah waxtaan bi poñ bi nga xam ne moom lañ ko dénkoon jox na ko xàqam wax na ko indi na li nga xam ne moom lañ ci soxla woon bu ngeen teewloo bu baax a baax pour ñi nga xam ne dañuy soog a ñëw euh, waxtaan bi mu ngi ko tënkoon si ñetti poñ benn bi mooy pas-pasu jàngalekat bi ak ay jikkoom ak i melokaanam waxtaan na si lu yaatu joxe si ay misaal waaye boobu li si gën a neex ci tënk bi mooy dangay yëg ne jàngalekat bi ci boppam ni muy jàngee comme thème yii di ñëw sifaatul xuruf noonu la war a xamee sifaatul muallim nga xam ne dangay xam melokaanu xarafi نون غورا خمي ملوكانو جانغالي كد كون نيمو أمي صفات الحروف نون لا أم صفات المعلم لولو اندي نسلو ياتو سي والو پاس پاس اك والو جيكو بنين بي سي تيغي موي مظهر بي جانغالي كد بو گيني رك بو جوغي ولا بو توغي ولا بو واخي ولا بو دوخي soko xolé da nga wara xamné ki jangalé kat ci comportement yi nga xamné ak melokan yi nga xamné teunk nako te tënk ko lool nag ndax waxtu booy ñu ko mayul boo ko xoolee dangay gis ne jàngalekat kii jàngalekat la si melokaan bi nga xam ne moom la amee waaye tamit jàngalekat dëgg boo ko tiimee si daara ja danga war a xam ne kii jàngalekat la si respecte bi muy respecté boppam ak rek cër bi muy jox ñi muy jàngal ndax bu njëkk comme ni ko suñu mag ñi daan waxee dañ naan dañ lay laaj ne la ku la jàngee maanaam buñ lay laaj fooy jàngee dañ lay laaj ku la jàngee maanaam dañuy jël niveau ki jàng ak kiy jàngale ñi yemale ko su fekkee ne yow miy jàngale bëgg nga réussir ci li ngay jàngale da ngay yemale sa bopp ak ki nga xam ne mu ngay jàngal nga jox ko cër comme ni nga xam ne noonu la ko waxee ci toogin yi léeg-léeg nga gis oustaz yu féex sax jël seen tànk sax teg ko ci kaw ndongali léegi léeg mu koy bësloo tànkam day am léegi léeg ñu def yenn yi rawatina musaayid yi nga xam ne moom lañuy bàyyi ci ci xalqa yi léeg-léeg bu fekkee ne ustaas bi mu ngi génn di dem defaru jàpp ak yu mel noonu léeg-léeg musaayid yi day aajowoo ni ñu leen di jàngalee ni ñuy saatee ñi leen di jàngal ban comportement lañ war a am kon yooyu yëpp dik dikk na si bu baax a baax si jàngalekat bi kon nag euh, li ñuy wax rek mooy ñun ñëpp nañ def sama wa si li nga xam ne wax na ko duñ bëgg dugg si benn poñ muy lëndamaat waaye dañu leen di wax ne li nga xam ne dégg ngeen ko si melokaanu jàngalekat ñun ñëpp ngelawaay nañ fexe mel ko kon nag su ko defee ñu jàll si deuxième point bi mooy euh, yéen ñi nga xam ne da ngeen a am laaj kenn ku nekk mu préparé euh, oustaz moom tamit préparé bu baax nga xam ne laaj yi day. day day leer tontu bi leer mu gaaw ndax temps bi jeex na daanaka kon nag dañuy dale ci suñu amir suñu ustaaz suñu lépp muxtaar ustaaz muxtaar euh, mu dikk moom tamit ci ay leerlu walla ay munaqasaat sax lañ koy wax waaye day laaj laajinu ku bëgg a leeral insha allah kon moom itam ndax jàngkat buy le buy laañ jàngkat su boobaa day dimbale ñay déglu waaye nekkul seen diggante ñoom ñaar mais pour ñuy déglu la incha allah. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. su ko defee bu loolu weesoo si Oustaz Babacar dafa nga am da nga wax benn point te mooy seen daara yi dañuy jullee ci jàkka ja loolu moom il faut ñu ne xaas ci parce que am na daara yoo xam ne bu seen daara demee jàkka ja jullee ji fa julli nga fa nga fa am lu baax ca daara ji xale yu mag yi mën nañu may julli. mu ne bañ a jàpp sàppi ba du baax du ñu xam julli du ñu war a julli man jàpp naa ne hunaaka farq bayna salaat fil jamaa wa salaat fil masjid léegi loolu laa bëgg nga defal ci ab leeral bu baax ba xam seen daara yëpp ba war a bàyyi seen daara dem jaar dem jumaa ji bàyyi fa gone jàkka ji bàyyi fa gone waxuma jumaa julli ji jàkka ji bàyyi fa gone ñuy xëlfoo ñii di juutu ñii di sànni seen tànk ñii di wax ci biir julli gi ñii di dóorante ñii di wokkante wala daawaa ne ci seen biir tanzim leen ñu julli salaatan multasama loolu laa bëgg a laaj foofu ci foofu bu ñaareel bi mooy ci wàllu niya da nga cee wax loolu moom shay muhim jiddan maam teg gi du niya fii kulli jalsa dafa war di am ci njàngam alxuraan loolu suñu abdou aziz dañu ko am lu bëree bëri dana wax naan del wax lu da leen da leen tëj seen yéene saa bu ngeen toogee ci xalqa bi toogaay bi bees yéene ji na beesaat ngeen di waxaale allahumma allahumma aqim wajhi li diinik wa tawalla bi nafsika jamia umuri ndax dañ la waxal loolu lolu mooy yàlla yàlla nanga ma na ma jël jox sa diine man na ci diko ko ci sama mbir ye nga xamne mo moo nit ñi tal diine nga féete ma fa ibnu qayyim al jawzi dafa wax ne inni u'alidu inni la u'alidu niyyati akthara mimma u'alidu amali sama yére ni ma koy préparé ak ni ma koy càmbare du ma ko càmbare sama jëf li tax moy yére bu xëdë baax jëf ji day baax taabi lil amal yaani al amal taabi lin niyyah لولو نغا سانك نياري بوين يي دال لا ام بنا واخ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله ما ماغي غرم سما شيخ شباب بكر غوم تي عرض بو ام صلو بي دي نيان يالله سبحانه وتعالى يالله نكو ديف تي ميزان حسنات مبولم ني في تيو اك نيكو ورا جيرنيو الك ا دي سانت دي غرم بو باخا باخا جمعيه اهل القران بفاسوري dama am ñaari laaj benn laaj bi mooy ñaari kalima yooyu ma junjoon Cheikh Ababacar benn bi dafa naa mooy al fa fa atu wa ta ta atu xëy na sama mustawa luga moo xaw a daif lool ma ko doon leeralu bi lisaanin wala fi yin muniir ñaareel bi itam mooy dama doon laaj li ñuy tuddee ci daara yi léeg-léeg li ñuy tuddee gëdd am na daara yi koy tuddee gëdd mooy xale bu xaw a naqari xel ba jéggi dayoo léeg-léeg yàlla mën na laa natt sax mu naqari xel boole ko bañ jàng ñaar yooyu moom dafa nekk ñaari gaaf yu xaw a jafe jëflante ci xale ma doon laaj ban yoon ngeen gis boo xam ne moo gën a mucc ayib ngir jëflante ku mel noonu ki boole ak bañ jàng ban yoon ngeen gis ne moo gën a mucc ayib pour jëflante ak moom wa jazakum allahu xayran asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu du ñu def lu dul sant Cheikh Babacar yàlla na yàlla nangu yàlla na yàlla barkeel ñin ñi toogoon di déglu itam yàlla na yàlla jariñ ñu ci waaw ah, Cheikh Babacar tomb bi nga xam ni eh, rot na ci say waxtaan mooy bi ngay wax ci jàngalekat bi nga xam ni du respecté heure bi mu war a dugg te balaa wàcc jot mu wàcc léegi beneen axe bi ki nga xam ni moom heure dugg day tardé waaye itam bu nu waree wàcc une léegi léegi dana dem ba une heure et demie wala ba deux heures muy soog a wàcc nga xam ne moom toujours waxtu wàcc bu jotee day continuer ak xale yi ba nga xam ne sax bu ñu amee yeneen programme yu ñu war a def sax léegi léegi day euh, xaw a nekk ak xale yi rek kooku ndax ku sàggan euh, kuy yàq programme la wala kuy tardé la wala noo koy noo koy noo euh, noo koy jàngate. beneen bi euh, bi ngay wax ci jàngalekat bi nga xam ni moo xam njiitu daara bi la wala nuñ ko mën a tuddee daanaka bu fekkee neuf heures la ñuy dugg moom day bàyyi ba dix heures mu ñëw wala daanaka xalq ba du fa jaar wala yu mel noonu léegi foofu ci wàllu idaara donte yaa ngi doon wax ci euh, ñun ñëpp bàyyi nañ ko xel daara ju ndaw ak daara ju mag ak xale yu bari yu mokkal ak xale yu néew yu mokkal ak yëpp yow sa yéene na yàlla rek tax euh, loola lu la ci fekk rek nga xam loola moo la ci fekk waaye doomu aadama moom la koy jariñ rek mooy yéene ju sell léegi ci wàllu idaara ki nga xam ne dafa yor daara ju mag nga xam ne ay xalakaat la ak suñ jamono yi léegi ji ni nga ko xamee asma jàngalekat yi ak ni ñu wuutee ci wàllu jikko yéeg yëpp nga xam ni dafay laaj israaf bu baax a baax suwaat mu diiru daara bi mën koo defal boppam wala mu ut ku koy defal kook nga xam ne moom du yor xale yu mu féetewoo day wër ci xalq bi di ishraaf di lu ñu euh, yu demee noonu wala daara ji nga xam ni itam ni ma ko waxee daara yi ci aju dafa bëri ndax euh, xayrukum googu nga wax man taallama alqurana wa allamahu te da koo nettali sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax Abdourahman As-Sulami moomu nga nettali nga xam ni daanaka saa boo ko dégloo rek dalay soññiwaat ni xaddis boobu moo ko tax a toog at yooyu mu toog waaw léegi nag ndax sëñ daara bi toog rek xale yi wër ko mu di leen jàngal ñoom ñoo jagoo loolu wala ka nekk ca waañu wa di togg nga xam ni la muy def bu soob yàlla bu sottiwut boo moytuwut kay toog ca xalka ba du fa toog wala kay seetal daara ja ba nga xam ne li suñu diine moom set moom Euh, moo ca njëkk moo ca mujj euh, ya ca aju yëpp daal ci liggéeykat yi nga xam ne ñoom tooguñu ca xalqa ya ci wàllu bureau baag yeneen ak yeneen ñooñu nu ñuy jàngate seeni mbir ndax euh, daanaka ki toog ci xalqa bi rek mooy jagoo loolu wala déet foofu soxla nañ ci daal ak leeral bu baax a baax beneen bi bàyyiwuma ko xel dëgg-dëgg ci biir waxtaan wi wala boog xëy na maa déggut bu baax wala bu fekkee mi ngi ci itam soxla nañ ci ak yaatal tuuti rek muy jàngalekat yu bëree bëri ñàkk formation ci njàngin yu njëkk ya wala daara yu njëkk ya nga xam ni dañuy jàpp ni moom pour ñu am résultat ci xale bi wala xale bi mokkal rek onf rek la ñuy jëfandikoo dóor rek ba xaw a yóbbu xale bi laaxira euh, ak rawatina suñu daara yi mel nekk ci capital bii Ndakaaru léegi-léegi nga dégg ñu ne suñ daara diw kat mu nga la ko fa yóbbu mu dafa gaañub xale wala dañ koo tuumaal ci jigéen léegi ndax rahma rafa ndax foofu waruñu cee roy suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne lépp lu ñuy def jàngale alquran ak yépp ci moom lañ ko war a royee ndax ñun maanaam unf rek lañ war a jëfandikoo foofu it soxla nañ ci daal ak tuuti rek leeral dafa naa daal ci gàttal lii laa amoon loo xam ni moom laa indi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yéen samay suyoof yëpp nuyu nañ leen ziar nañ leen macha allah ñu bañ a dugg si tafasil point bu ma bëggoon a wax euh, njëkkee ko sëñ Maxtaar euh, nga xam ne daanaka mën naa wax na ne si loxoom laa mujj si daara ja daanaka yàlla fay yiw njëkkee nag mu may mbiru masjid ba euh, loolu xam naa woon après sax dina fi ñëw li ma si yokk moom mooy jàngalekat bi. li nga xamante ne mooy côté wérgu yaramam te côté wérgu yaramam su su bàyyi wut xel su su bàyyiwut xel du yàgg si jàngale parce que amul métier bu ëpp bu gën a diis jàngale soo dul di mu taaban sa sa sexa soo deful ndànk doo yàgg si jàngale kon loolu tamit euh, benn tanbih la boo xam ne euh, mu ñàkkul moom mu gën see indi ay leeral ñu bàyyi si xel may si côté wérgu yaram même Cheikh eh, Ibrahima Khalil eh, daan na ko wax nee na bépp jàngalekat bu des ci xalxa di jàngale dix ans yow caaxaanut dix ans nga mu nga nga nga nga eh, nga mu laazama ak xalqa dina am lu bàyyeekoo ci yow loo xam ne du du jëmati mukk ba faw xoolal ñu yàgg si jàngale xool leen rek xool leen rek léeg-léeg ñu am lu ñuy jàmbate wala yu demee noonu beneen bi nga xam ne fa fa laay terminer moom mooy. il wala dañ ministre de l'éducation daf ñoo wara parce que li mom la waron ñom lekk lañuy des ñu naan daara yi daara yi modernisation daara te dafagul ben acte bi wone na ñu ci lolu te li ni ci acte yi la vie. kon ahlul quran nañ kon ne nasalullah tawfiq wal hidaaya asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah ñu nuyu ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ziar suñu sëriñ bi bu baax Cheikh Mouhamad Touré di ko ñaanit muy jottali ñu yokk ziar suñu papa ja bu baax baax di sant mbokk mi ci waxtaanam wi am nañ ci am na solo lool jariñu nañ ci bu baax a baax ni ko sëñ Mor Sarr waxee léegi rek ku ne gis nga ci sa bopp man gis naa ci sama bopp bu baax man mii sama mbé li ma gënoon a tax laaj parole nag sëñ Mor daf cee ñëw ci laajam te mooy tabdilul waxtu laa ko mën a tudde muy jàngalekat bi tardé heure xëy na yokk heure ndax loolu man dama koo dund lu bari loolu moo ma taxoon a laaj kàddu wax dëgg yàlla waaye comme suñ moor ñëw na ci ñu ñëwal ñu ci rek ndax loolu dañ koy tuddee ndax ki ñëw ndax xàqam bi mu amoon xëy na moom mën na jàpp ne da koy remplacer mais est ce que sañoon na ko ndax heure bee moo nekkoon heure liggéey bi ndax it duñ jàpp ne buy yokk moom bu mënoon maye mooy maye wala déet wala loolu lépp daal man na ko tamit bi ma ciy yokk rek di ko jeexale mooy limu wax legi legi stage bi nek ci halqa melni ni nga dugg classe après fajar ta comme waxtu wo won waxtu zikrullah la nga bolé ko na ci halqa def say zikrullah donte heure bobu fekke amoo ñuy tari ci loolu lañ koy mëna duggal xeyna nak man na nek ko xamne ne lu yén saa salaam jàngale xeyna ci temps lu mu jël xeyna 15 minutes la amna keneen ko xamne xeyna xëy la muy def kurusam la yor wala nangam fofu it bëggoon naa ñu ñëwal ñu ci ndax nit ki man na nek classe bolé ko zikrullah yu bëgg def assalamu alaykum salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu kilifa yëpp ci tënk rekk comme ni ko waxee ñun ñu ngi ci euh, ay daara yoo xam ne du internat externat la xale yi dañuy jàng di ñibbi te daanaka ñi gën a mag ci ñoom ñu ngi ci école français yi samedi ak dimanche nga leen di gis. ñi gën a sax ñi nga xam ne ñu ngi ci yow tout le temps mooy ñoo xam ne moins de 7 ans 7 ans jëm suuf 5 les ak ak mel noonu loolu ban nasiha la am ci yow. pour mën a sol ci ñoom loo xam ne dina sax parce que bari na ci ñoom ñoo xam ne dangay sol ci ñoom dara buñ demee bu ëllëgee bu ñëwee nga fekk ñu sumi ko ci ay wax wala ci ay njàngale li ngay def ngay gis bu ñuy dem di ñëw ci suba nga fekkee lépp yaa ngi liñ ci defoon nit dañ na loolu ban na si yàlla ñu am ci incha allah pour mën cee eh, am résultat incha allah. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ginnaaw bi ya ma nuyoo ba pare maa ngi jaajëfal suñu cheikh bi di ko wax waxtaan wi am na ya, solo macha allah waaye sama question question la wala leeral ni ko mën a tuddee ndax wax ji rafet na. mais ñun jigéen ñi gisuñ ci suñu bopp pratiquement moom ni mu waxee man góor ñi rek laa gis ne moom lay waxal te léegi yaakaar naa macha allah jàngalekat jigéen ñi bari na loolu. am na kii kat conseil yi ñu war a jox loolu laa amoon lu ma doon wax asalaamaaleykum. kon incha allah question yi mu ngi noonu xam naa ne kii moom peñe yi sikkim yeeg yooyu la doon wax waaye waxul si muuraay yeeg toogin yi incha allah kon euh, duñu def lu may jox ko micro bi mu dikk si tontu yi incha allah. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمم دي تعليقات برنا xamnaa نقول لي وانا موي جاي نقول المتابعه ñu باخ. doon mutaabaa bu baax a baax am na nag yoo xam ni xam naa ne mooy jàngale alxuraan wala daara alxuraan yi masaakil yi ak xulul yi xëy na ñàkkul ñiy laaj dañoo itlaaq waaye foofu la gën a jëm waaye billaahi nastaan yi waaw Cheikh Muxtaar am na lu doon junj muy julli mbooloo julli mbooloo moom li ñu ci jublu mooy julli ci ci jàkk mais du caagin ñenn ñu def seen mbooloo su doon loolu la kon ñu tabax jàkka yi li muy wax nag moom mooy fekkente ni seen daara bi su demee خليه يتفاوض على دينك هاي فوق دابا من عاري موقف ما دافع عمل لوكو ورا تي خليه مور تاخو تنظيم لين لول ليغي بو خامني تي اول وصلنا غاد مو خام كلام مو كوساس ولا مو كوساسو وانا ام لنن مي جولي تي تي مورو تي غور بو امون غانت تي مبولم جاكاي دا موتا ني واخ لول فراتا مساله بي كوم نين كو خام نيب تي فقه الاسلامي مساله خلافيه لا ولن جاب والله اعلم موي الراجح مودي كيب كوي góor te amuloo ngànt da ngaa war a dem julli ci jàkk loolu nag ni koy muaalaja Cheikh Makhtar jàpp naa ni am na ay turuq ak i wasaa'il bokk na ci jël ay muraqib yoo xam ni xëy na ñoom dañuy tanaawul seen biir ci di israaf xale yi waxtu yooyu su fekkee xale yi mën ñoo dem ci jàkka ja ngir sori jàkka ja wala ngir jéggi tale amna na ci yoo xam ne mën naa andi ay maxaatir subaa ñoom bu ñu tanaawuloon ci seen biir dañ mën di fexe di julli ci jàkk ولا مو أم أي خالد ما يو خامني ما نجاب تني جي بشرف خالد نيجي أب كورل بوهم دنيا تناو سنبير بوه تجولي جتاي نيجا خامني نيجي مكان لفيا نيجي دنيا نيجي جولي جي داك مو خام دنيا جولي جي نيجي تكاو خالد خالد دورو جولي ولا نيجي دنيا جولي جي باي فا بن مسؤول بوه خامني سبوا ما يتكاو خالد والله أعلم بيشتوب ماي أبو بكر توري بعد الفاء فاتو تك تكينه بكم أتاتا mooy kiy jàng di tudd yeneen araf yoo xam ne bokkut ak baat mi jàng misaal bi lañ joxe am na ñoo xam ne problème fa la ñu am na ñoo xamante ne ta la ñu am wala beneen araf boo xam nit ki tàmmoon na ko dafa war a fexe ba góorgóorlu xeex ak làmmeñam ba ayib jooju mu tàqale ko moom ba bu ëllëgee moom bu jàng alxuraan ci boppam jàng mu set la koy jàng mu wér waaye ku misaal alxuraan daf koy sàcc anam yoo xam ne bu wér la parce que euh, xuruful euh, xuruful euh, hijaaj yi kalimaat yi ci ishiqaaqi toujours day wane dolle nangam ko boo nee kawafahu wala shayyanahu wala nawwanahu mooy doole na ci ak tenwin wala doole na ci am na beneen laaj mooy ab taalibu chaz laa koy tuddee taalibu chaz mooy xale bi nga xam nii dafa naqari xel xelam neexut ñaareel ba it bëggul am jàng loolu nag mooy muskila bu mag bi kon maanaam dañ ko waroon a bàyyi ak si alaaji <laughs> xale bi nga xam ne moom euh, bëgg na jàng mais xelam daa naqari amul muskila xale bi nga xam ne bëgg na moom mais xelam moo naqari amul muskila ki nga xam ne xelam dafa naqari waaye bañul jàng amul muskila waaye ki boole ñaar yi foofu muskila bu mag la ala kulli xaal ku mel noonu moom dañuy naxanteeg moom ndax nit ki mën naa bañ jàng mais dëgërul bopp moom bëggul jàng da xam ne kii moom amul euh, irtiyaax ci njàng mi mais nag nekkul mutamarrit bokkut ki nga xam ne moom daal lànk bëggutu jàng nekk mutamarit di fawda ci xalqa bi di salfaañi programme bi di saboote kooku moom ñaara fi nekk nga man koo mu alaja mënoo ko nga woowee juróom mu jël si ko ndax kenn kese du yàqal mbooloo comme ni ko waxee su dee nag yàlla dogal moom xelam naqari moom bëggul jàng mi mais nag amul fawda bu muy def ci daara ji wala tashwish wala nekkul ni mutamarit ngay naxante moom ndànk-ndànk bañ a gaaw a naagu ndax yàlla mën na ba yàgg mu ubbi ko ndax loolu day am ci njàng. koo xam ne fil bidaaya day tëju soo ko teelee bàyyi rek xañ nga ko ab cër teewul nag ginnaaw dafa am ku la ko jox te tey njàngum léegi dafa dem ba seen daara dugal seen bopp tënk seen bopp naan nangami at la xale di mokkal ak yu mel noonu nga informé waajur bi ko fi indi woon xamal ko kat diw kat taarix sàngam nga ko fi indiwoon woon bi ngay doo indi laajoon naa la xaalaam nii la woon jamono bii fii la toll nga leeral ko bayaanaat yépp bu fekkente ne moom changer ko bërëb la gis mu changer ko sa la masuliya dégagé wu moom dafa gis ni ah lu man defoon des fii mu des foofa ngay naxanteeg moom ba kër nga am lañ bëgg soo demee ba muy waaj a âgé am yenn at ya te mokkal alxuraan te mokkal alxuraan li muy màgg màgg li muy foor foor du farata maanaam du fardu ay ni fardu kifaaya la nga jëm koo ci ilmi mu dem xam-xam gis problème lu la am ni ki mokkal kaanu di ko tari xam nga bokk yombul mais amul problème di jàng di fahmu ñu dem jangal ko xam-xam bëri na koo xam ni am na xam-xam te mokkalul alxuraan loolu na su boobaa bu ñu gisee ni kat mu ngi bëgg a aasi wala xëy na daara ji am na xismu taalim ñu yóbbu ko foofa su amul cërub mokkal alquran am cërub xam alquran wallahu alam sëñ Mor euh, jàngalekat bi moom li jaar mooy mu respecté heure yi parce que duñ ko tegal ay heure parce que fekkee jàngalekat bi bu ko neexee day tardé fukki minute ak juróom wala ñaar fukk wala fan ba koo dabaatal ci ginnaaw bi ñu wàccee laa chaque année daara ji daa am programme ba fi dox am na heure bu ñu dugg am na heure bu ñu wàcc am na heure u añ am na heure u noppaluku am na heure u dallu am na heure u sangu su boobaa li jaaru mooy ku ñëw ñu présenté ko barnaamit bi dafa am na loo xam ne si um taari lay doon loolu de ko bañ matalan tey kii daawul tardi xamewuñ ko woon loolu ngante ko téye matalan mën ngaa gis koo xam ne tey xëy na ala sabil misaal am na carte d'identité bu mu déposé ñu jox ko heure boo xam ne waru ko mën a mënut a ñàkk dem jëli ko wala euh, rendu boobu ak hôpital am na fa fanweeri minute mu ñëw moom moo am xayaaru xam nga loolu yaakaar na suñ daara du ko daf du ko topp ni ko faaw nga fay ko mais moom moo am xayaaru pour minute yooyu ko rawoon mu mottali ko te ñu gis ni loola xaj na fi amul benn programme ba mu yàq ñu nangul ko su fekkee day yàq benn programme ñu tasriix ko saraaxatan nag ni ko ah waxtu kat fii la yem kon loolu beneen yoon lañ koy dabaatal liggéey dafa duggalante te lenn daa am fu mu tàmbalee am fu mu yem parce que boo gisee ñuy tawqiit mooy dabtul amal la bu tawqiit amul liggéey bi kenn du ko dapp su boobaa fawda day daal di am am na koo xam ne bu ko neexee mën naa am ne man kat yeewu njël du ma arrangé mën naa bëgg bàyyi ba julli njël ma doon tàmbale jàngale xale yi konti su boobaa day indi muskila kon léegi sëñ daara bi daal moom moo war a tawqiit ginnaaw bu mu amee jalsa boo xam ne suura ak mu dari siine yi tëral programme boo xam ne daa am bidaaya am nihaaya xam nga boo xoolee ci wàllu waxtu julli juróom yi julli gu ne am na fu mu tàmbali am fu mu yem am na waxtu boo nag ñi nga xam ne dañoo am ay ngànt lañ ko jagleel lu mel noonu ngànt day gaar ci liggéey bu ne ñi nga xam ne am ngànt ñu may leen benn ruxsa bi mais bu ñu a nekk maanaam sunna ratiba nak ci bo xamanteni da im lay doon la chaque ni bu baba day yàgg bu yàggee day andi jafe-jafe te fawda day am ci liggéey bi te fawda bu xasee am rek liggéey bi fa waroon a egg fa ag waaw hadith bobu de khayrukum man taallama alqurana wa allamahu borom xam-xam yi am nañ ci ñaari fahm am ñen ñoo ñu ko dégg ci sahir sunum rek khayrukum man taallama alqurana wa allamahu kon kii mubashara khalqa bi ak xalqa bi moo xam-xam xalqa wàcc ñibbi la xalqa internat la jàkka la daaral lu man di xew même bu dee ak njabootu boppam day jàng dugg na ci xeer yee dugg maanaam daal nay mubaashara njàngale ma alxuraan door cee bokk ndax xayrukum man taallama alqurana wa allamahu boo demee ci téere yi jàngale ulumul quran ak yo fadailul ci ëpp daanaka noonu lañ ko tekkee noonu lañ ko fahmoo yenn nag ci borom xam-xam yi nga xam ne toujours dañuy gis ni sharia bu waxee dafa am ay maqaasid ay objectif ak ay jubluwaay yu mu jublu ci mbir yi te it maanaam al wasailu laha ahkaamul maqaasid yi ñoom nee nañu képp koo xam ne dara la ca njàng moom ak njàngale ma rek day dugg ca biir borom xam-xam yu bari loolu lañ ko tekkee dañ ni xayrukum man taallama al qurana wa allamahu kay jàngale dugg na ci biir kay yombal njàngale ba nit ñi tegee ci yoon njàng ma dox kay israaf kay muraqaba ñëpp dugg nañ ci biir xayr yëpp googu te loolu wax ju am maanaa la te yërmande suñu borom tabaaraka wa taala yaatoon na noonu barkeb alxuraan ëpp na loolu wallahu alam sëñ Mor junj na fi qadiyatul unf fi tadris mooy léeg-léeg jàngalekat bi comme ni nga ko waxee rek jàngale ñu bëri ci ñun comme ni nga ko xamee bëgg-bëgg lay doon ci ñoom ñu am pastéef boo xam ne ak dogu goo xam ne kenn du ko nattable mais nag léeg-léeg formé wuñ leen ci naka dañuy jàngalee alxuraan naka la ñuy saytoo ab xalq loolu nag nit ki da war am formation parce que mooy tax mu am capacité boo xam ne moo koy permettre pour mën a mubaasara liggéey bi ci anam goo xam ne bu mucc la ci ayib loolu moom daf ciy faral di am sëñ moom jaanib boobu dana ko andi te nit koo xam ni amul formation di jàngal alxuraan moom nam ko tasawur rek nan la koy defe loolu benn mbir la ñaareel bi nit ki mën nekk koo xam ne sax man naa am formation waaye nag xëy na ci ni ko yàlla bindee mu am xaraara am tàngoor woo xam ne xëy na léeg-léeg la muy def ko sóoraale du bàyyi xel ay maalaatam loolu andil ko ay jafe-jafe waaye lu ci di xew loola ñaar rek moo koy muaalaja ba ñett bokk na ci defal jàngalekat yi formation bu ñu amul formation ci biti ki nga xam ne moo jiite daara ji nga xam ne tey lu laal ci daara ja laal ko jàngalekat bi am erreur yow fu ñu la woo woo la fu ñu ko woo woo fa yow foo toll yaa xam semaine bu ne la wala weer ne ngay dajale jàng jàngalekat yi di gën a waxtaan ak ñoom ci la waa ex daaxiliya ak li nga xamante ne mooy norme daara ji ak dawaabit yi nga xam ne moo nekk ci daara ji leen ko fàttali bay na faydatun uxraa su ko fee mën naa am ñu koy bàyyi xel kii jàngale gëm ni moom ñi muy jàngale juru leen moom leen ay njabootu jàmbur yoo xam ne may ñu leen ko kon am na ci sañ-sañ boo xam ne amu ko bu doon ci wàllu xel kese ak aada waaye am na sañ-sañ boo xam ne sharia amayu ko mu jéem a góorgóorlu xam fa muy tàmbalee xam fa muy yem ba des mu am gëm-gëmu ni moom amul yéene rek jàngale alxuraan benn bis wala benn semaine wala benn weer dafa bëgg a jàngale alxuraan di kunne ba kare yàlla dogal mu tële jàngale wala mu génn àdduna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 asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di jégalu bu baax a baax ci xaw nga yéex a ñu ngi nuyu jamaatu ahlul quran di nuyu mboolem ñi teew ci saal bi yépp di nuyu ñi jiite dawru bi ah xam naa ne suñuy dawru ak waaye liñ naan. Eh, wolof di wax léeg-léeg naan fecckat munta muñ ay dënn am na ay point yu ma dégg ñu laaj ci tuuti ma bëggoon ci joxe tuuti sama eh, gis-gis bu njëkk bi mooy xale bu xale bu bañ jàng ak xale bu naqari xel naqari xel day waral bañ jàng naqari xel mooy waral bañ jàng ndaxte xale bi nga xam ne li muy jàng di mi ngi koy mokkal du am problème kooku du bañ jàng mi waaye xale bi nga xam ne mokkal da koo jafe dafa war a def temps bu bëree bëri bu mu mokkal il faut day bañ jàng su ko defee xale bi naqari xel dafa am nu ñuy jëflanteeg moom lu bokkul ak ni ñuy jëflanteeg xale bi nekk xel naqari xel du tee mokkal alquran mën naa tax ay yéex a mokkal nag waaye li ñuy wax charge te moom mu wax ko léegi Mouhamadul Makhtar xam na bu baax waaw daaru arqam xam nañu bu baax baatu charge baat bu siiw la ci daaru arqam dañu am seen barnaamiji bopp am seen doxalinu bopp am camion bu ñuy jël boo xam ne moom la ñuy jaar ak ñoom kon naqari xel day waral bañ jàng loolu nag tilmi euh, muallim bi moo koy xam beneen bi des mooy muallim boo xam ne day faral di tardé wala day day jël kii dafa am muallim am sawekat am emploi muallim ak sawekat bokkul muallim ak kuy taxaw bokkul muallim ak emploi bokkul muallim day gëm taalim day gëm tahfiz day gëm li muy def li muy def du koy bu koy def defu ko sax pour ki koy taxaw defu ko dafay dafay daa nekk day xaw mel ne dafa drogué wu li muy def da koo bëgg da koo da koo bëgg temps lépp da ko ciy def kooku mooy ki nga xam ne mooy yeyoo ñu tuddee ko muallim soo xasee ba mel noonu nag problème yu bari bari yu ñuy wax dootu ko defati su ko su ñëwee ci ndax muallim bi mën naa tardé ba pare mu mujj heure bi mu jël ko loolu bu njëkk daara ni mu doon doxe ci senegal nga xam ne. kër gu nekk daara la nga xam ne euh, jàngalekat bi day jàngal kii ci wax dañuy boole dañuy boole ay liggéey yu bëree bari di jàngal kii ci waxtu wi di jàngal kii ci waxtu wi waaye day fekk bariwuñ léegi dafa wuute léegi jàngale mi il faut day rek ci nizaam mooy tax nga mën a jàngal ñu bëree bari mooy tax nga mën a jàngal jamaa bu bëree bëri te foofu fi lay dugg si pour wax ci of affaire unf euh, dañuy il faut ñu xam ne kenn ku nekk ci ñun ni mu jànge ni mu jàngee alquran bu ko jàngalee rek ay àdduna tukki. kenn ku ne ci ñun ni mu jàng alquran bu ko bëggee jàngale rek addu tukki parce que daj na loo xamante ne bii jamono passé na ko waratu waratu ko def su ko defee kon léegi euh, mu bàyyi xel ne xale bi nga xam ne dafa jóge seen kër bàyyi papaam bàyyi yaayam bàyyi ci lu ndaw bàyyi bàyyi bàyyi yu bare bare bari war a ñëw ci mbooloo moo xam ne xamu leen woon war a ñëw ci lal boo xam ne xamu ko woon di tëdd lal boo xam ne mosu ko gi mosu ko xam di jàkkaarloo koo xam ne xamu ko woon li lekk lekk boo xam ne togg mbooloo lay nekk lay nekk du mel ni war a mel loolu day na unf loolu day na unf su ko fee li ci des maalim bi bu fekkee maalim yi àgguñu ci martaba boobu mu diiru jàng bi ak moom war na àgg ci martaba di di lee ngeen teg xale yi di lee ngeen teg maalim yi ñu wax ñi ñi leen di yërëm di leen def nag jàppaleen comme seen ay rakk ñu xam ne jamono yi ñu toll nii doonatul jamono yi far force da ngay jàng wala ma rey la loolu moo amatul su ko fee loolu bu ñu ko defee rek incha allahu taala loolu unf dana fa jógee ne ne tamit mënul ñàkk li gën a baax ci xalqa bi mooy ñu tëral ko ci nizaam boo xamante ne bii njàngu alquran ñett yii la tari bind tari bab saar tari saar waaye ñu tëral ko ci nizaam boo xamante ne bii dañ koy defandoo yëpp nga ak ak ak sawaata ak wala bind tari bab eh, saar tari sawaate jàng pour mokkal jàng tari saar yooyu mooy aham niqaat jàng eh, njàngum alquran li baax nag mooy ñu tanzim ko nizaam boo xamante ne bii waxtu wu nekk ñëpp dañuy defandoo lépp su luy jeexee ñu dem ci lee su luy deexee ñu dem ci lee lu jeex ba ñuy dugg ci li ci des ba leen cee dugg muallim bi fexe ba tawiya muallimin yi tawiya xale yi génn nañ nuqta sàngam ñi nga war a dem ci nuqta sàngam nangam ak nangam lañ ko defee yoon wi lañ war a jaar yoon wi lañ war a jaar su problème problème bu mel nii amee nii lañ ko réglé ba ci sax ni ñuy israafe xalqa bi muallim mi mu jàng euh, mudir bi mu jàngal ko muallimin yi kii israaf xalqa bi dafa war a xam ne xalqa waru fa yor portable dafa war a dafa war a concentré bu fekkee xale yi dañoo dañ ko wër nekk ci daayira dafa war a jël benn minute bi séddale ko xale yi nga xam ne bi nga bu xoolee bëtam bu diggee ci xale bi mi ngi xool ba minute bi jeexee xool na xale yëpp xamal tamit xale yi ni ñuy jàngee ni ñuy jàngee pour mokkal dafa am jàng boo xam ne mooy tax a mokkal ki bëgg a jàng mokkal il faut day boole baaraamam ak bëtam ak làmmiñam ak xelam ci bind bi baaraam bi bët bi laam mi xel bi teg ci bind bi su ko ci tegee rek incha allah dana dana dana a jàng waaye su fekkee dafa bëgg di wax te xel mi du ci nekk li lay woon ne xel mi nekk ci wala boog li nga xam ne bu ko defee faaw faaw xel mi dina ci nekk mooy bët bi li xam ne moo ci téye bët bi mooy baaraam bi su fekkee baat bu a teg na ci baaraam bi bët bi mi ngi ci fekkee bët bi mi ci xel mi da ciy nekk ñoo xam ne ko ne ko lii ngay jàng ni nga ko war a mokkal te mokkal mooy nga dugal loo xam ne duggul woon loolu nag mënul yomb il faut nga am na am na baat bi am na nu mu kaw nu mu war a kawee noo xam ne waru ko ëpp su ko ëppee day gaaw a xot dos day day sonn am na noo xam ne bu nu bu ko suufee day gaaw a day gaaw a yokkat day day nelaw nga xamal xale bi ni mu war a jànge ba pare nag na ko sooy jàng boo tàmbalee ci aoudu billahi min ashaytani rajim tàmbalee ci bopp bind bi bu bind bi jeexee jarul nga koy waxaat commencé waatal bind bi te diggante bi fi muy fi ngay jàngee boo déggoon lu yëngutu bul siggi bu ci sooy nekk soo bëggee moo ko da nga wax loo ba mu gëm ko ko bul siggi tey bu fa jaar bu fa jaarale gestu bu fa jaarale sax daanaka wokkut soo ko soo ko defee fanweeri minute sa dërs wala gën a bar gën jaabari saa kaamil nga def ko dërs boo xam ne noonu nga ko jànge far force dërs day mokk su mokkul rek dërs bu fa ëpp soo ko defee dërs yi mokkul bàyyi xale bi mu dem tëdd nelaw bu yeewoo day tari insha allahu taala su mokkul dërs bu dafa ëpp loolu laa bëggoon taaliq di jégalu bu baax ba asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah xam naa ne macha allah yal na yàlla barkeel bépp kàddu boo xam ne génn na fi yal na yàlla barkeel xam naa nag euh, toll nañu fu ñuy yëkkatee jotaay bi si ñenn si kàddu melokaanu jàngalekat toll nañ fu ñuy yëkkatee kàddu melokaanu jàngalekat waaye nag jotaay bi day des di wéy kon nag ñu ngi ñaan yàlla mu defalal ñu dégg ak topp ngelawaay bu ñu fi jógee. nañu mel ni nga xam ne moom la ñu yàlla subhanahu wa taala digal ne nañ ko mel ñi daal di koy mel insha allah hada wa sallallahu wa sallam ala sayidina wa mawlana muhammad خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه